Eh, sant Serigne Mountakha Cheikh Ahmadou Bassir di ko ñaanal gudd fan ak wér gu di ko ñaanal ah, Serigne Modou Medina Fall xëy na kul bàyyi Fall mi ak tànn ak di ko ñaanal kilifa diine ak kilifa aada yëpp ah, ah, di ko ñaanal saa su di ko sàkk ñoom saa su ne seen émission wane ñu eh, ko waxee jotaayoon na xam-xam tey jii nag ki leen koy présenté saa Touba Serigne Modou moo ko daan moo ko daan présenté waaye nag saa Touba moo leen koy présenté. tey nag ñu ànd ak eh, Serigne eh, sa Aliou Seck Dioni eh, Dioni nee naa la sa Aliou Seck Dioni Dioni nag foo ko dégg rek foo ko gis rek na nga ko xam tey jii tabaarkàlla nee naa la doon faram fàcc lépp lan mooy Dioni Dioni ak lan ak lan lay indi ak lan lan lay fàcce suñu Aliou moom daal di ñu ñuy seetaan DSTV. waaw ñuy siyaare mbokki donte ak mbokki taalibe yëpp di siyaare sama Serigne Baye Jili bàkki borom léegi léegi maa ngi koy siyaare di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal bépp kilifa diine rek. waaw ah, jërëjëf euh, sëñ Aliou Seck ñu ngi lay jaajëfal bu baax nuyu bi am na solo bu baax euh, di sant bu baax équipe bu DSTV yëpp di euh, si ñaanal jàmm baax di ko sàkku si ñoom saa ah, suñu sponsor yi ñaawul ñu ngi leen siyaar bu bu baax a baax ah, di siyaar bu baax restaurant fast food di bitir complexe Kër Lam Fall nekk fii Touba Télé Bies Sera Mohamed Fall waaw tey moom du ma ko fàtte ndax jox na ab reer biig waaw ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax waaye dañ ne faj ak fajum cosaan lan nga ci def waaye yëpp laay boy rek comme maam ay wàllum faju rab ak ay wàllum sunguf ak ren ak yëpp daal mhm. ñu ngi ci biir mhm. waaw lan mooy faj waaw faj moom daanaka mooy ay tawatam wala ay jafe di ko ci lijjanti rek waaw loolu la rek mhm. waaw ah bu ñu nee faj ah, fajum ndoxum siti ah nan koy faje waaw ndoxum siti moom ñu ngi ciy jéem ñu ngi siy jéem bu baax a baax koo xam te ne déggoo nañ si daal incha allah bu neexee yàlla moom dana taw féexe mm-hmm. waaw ah, dana taw féexe si bis bi mu koy faj wala ay semaine la waaw loolu moom ay traitement la yooyu topp la rek bu baax mi euh, dañee ay mm-hmm. traitement yooyu topp rek waaye du loo xam ne da ngay ñëw léegi mu dañ si léegi nii mm-hmm. loolu moom wax dëgg yàlla man da ngaa bañ ma ne jooni jooni moom du ne lépp nga mën a jooni jooni léegi nii am na yoo xam ne mën nga kaa joon def jooni jooni léegi nii waaye waaw kon nag da nga koy traitement ay fan bu ko defee bu ñëw bu faju bu fajoo léegi bu bu fajuwut nag nan ngay def ak moom. waaw kook moom ko fajuwut moom xaw ma si moom pexe waaye ko xam daal daal déggante nañ moom ba jëflante incha allah bu neexee yàlla. Hmm. da nga ma indil ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. lan mooy ndoxum siti. waaw ndoxum siti moom comme am na ñoo xam ne ñu bëri dañ koy wax si wàllum jën da kay def ak yooyu. am na lay def yaramu xasan ak yooyu. ñu ngi jël micro bi micro bi na ñëw si micro bi. waaw ndoxum siti moom am na ñoo xam ne bu ñu xasee ba lekk jën rek. da leen indil ay problème uh-huh. bu ko defee ñuy xasan di muy indi ay ndox ak kii. Uh-huh. yooyu ay camp yooyu rek lañ lay defal maanaam bu ñu la ko defalee moom bu neexee yàlla lépp dana tawféex incha allah. toom uh-huh. si kon jën a koy indi. waaw na ñoo am na ñoo xam te ni doon nante la nag ndax am na ñoo xam te ni da ngay gis seen i waajur ñoo ko amoon mu wëlbatiku tourné waas ci ñoom waaw ah, loolu it ay traitement rek ngay topp ba lépp taw fexe incha allah. kon yow lépp sa lépp traitement la. waaw traitement ndax loo gis ne traitement am na yoo xam ne traitement nga mën a def mu mu dañ. Mhm. waaw nga may baal eh, xëcc micro muy xaw a dend ak sa gémmiñ bu ko defee ñu seetaan xam ah, kan yow yaay kan bu ko defee ah, di leen fàttali seen émission jotaay xam-xam Sa Touba tey moo leen ko présenté nee naa Sa Touba moom lépp lay présenté ci biir kër gi moom li ñu ko jox mu moom fi yëpp la mane daa man si bii boor man si bee boor ah bu ñu jógee si ndoxam siti dañ ne eh, jàngoroy kajoor jàngoroy kajoor ak ndoxam siti ñoo benn bokk wala waaw boobu moom kiyeegu ma laa xam ne moom def naa si ay faj naa si ay nit nit waaye ay boobu moom laalaguma ko moom wax dëgg yàlla am jàngoroy kajoor lu tax diw kiyeegu xamu ko ah, jàngoroy kajoor dama see jubloogul rek hmm. waaw dama see jubloo xam nga hmm. jàng naa ko ba mokkal ko hmm. boobu moom boo may seexaa dama lay tontu waaye loo xam ne jànguma ko moom mokkaluma ko boo ma waxee doo la si war a tontu waaw pelan ma hmm, yooyu moom ba tey kiiwu ma ko moom ndoxam siti boobu daal ma la wax moom daal dama si <laughs> ah man di jaaxal naa ah balan ma doo ko faj doo faj euh, jàngoro yi kajoor léegi hémorroïde ah hémorroïde am nañ sungufam sunguf waaw sunguf si yéen a koy defar waaw am na boo xam te moom traitement moom ngay topp rek di ko naan hmm. waaw bu dana dem ba moom incha allah bu ñu xam ne mu la daan sonali moom dootu la ko sonalee te dag ma indil ñeneen ak ñeneen waaw hémorroïde bi lan moo koy def. hémorroïde bi moom daanaka am na ñu bëri ñoo xam ne pat bi ñuy lekk donc moo leen koy def. Hmm. bu ko defee day dem ba indil leen ay jafe-jafe. Hmm. waaw looloo tax. Hmm. waaw léegi ñaan sëfoor si moom leen daal de. waaw même ba si ñaankat yi sax toogaay bi la rek. waaw toogaay bi moom daanaka boo koy def moom. yu bëri dalay gàllankoor. kon ne man naay naa naay jug di ànd di doxantu rek ndax ma bañ a émor ndax toogaay bi moom toogaay bi yàgg moom amul solo ah, daanaka mooy mooy mooy mooy lépp toog baax na waaye liggéey moom baax na ah, di xëy di eh, ñaq daal moom day baax ah, ndax da ci am solo bu baax a baax di sant baax suñu sponsor yooyu gis nañ ne bi ne hémorroïde gis nañ ne lépp hémorroïde da koy waral te dañ naan toogaay bu yàgg ñi naan du toogaay bu yàgg ñi naan euh, euh, maanaam man daal nu muy def bu muy jógee si suuf si fa ak fan lay aw ba nit ki bu nan la war a def ba xam ko. waaw xam nga am na ñoo xam te comme lekk gi ngay topp nii wala pat bii ma la wax léegi nii boo ko toppee fi mu dana dem ba indil la ko ndax émeri yi ñaaral dafa am bu génn am bu génnul dafa am boo xam ne daa génn am boo xam ne daa nëbbu moo tax bi nga xam te ne nag daa génn picc lay def suuf. bu ko defee boobu dalay sonal ba xam te ni toog sax doo ko man mhm. waaw loolu traitement yi ngay topp am na boo xam ni bu dee bu génne bi moom am na doomam spécial boo xam te ni moom day dem ba seeyal ko ba mu set wecc mhm. waaw ñaan da nga koo doon wala da nga koo doon loolu bu di ko rek doon ko ñaan gi moom dama kaa doon da nga koo doon waaw ndax fa koo xam ni xaalis mbay lañ la ngéntee ngéntee la xaalis sàmm mhm. ngéntee la xaalis ñaan ko boo ñaanut yaakaar naa moom si ay tappale nga nekk waaw ah, kon say waajur moo daan moo daan ñaan wala sa maam moo daan ñaan wala ñan ñoo daan ñaan. waaw samay maam dañ daan ñaan sama waajuru góor da daan ñaan. Hmm. waaw si ñoom laa doon xam-xam moo tax ma di ko def. Hmm. ah sunguf si da nga koy indiw tey da daa mel ni. bagage yi moom wax dëgg yàlla indiwuma ko moom wax ah, dëgg yàlla dara indiwuma ko wax dëgg yàlla moom. mën nga ko indi nag bu defee ñu seetaan xam lan lan mooy secret beeg yooyu. xam nga lii am solo. Hmm. mooy maanaam ku ma jëflanteeg incha bu neexee yàlla da nga ma indil ñeneen ak ñeneen. Mm. waaw loolu daal mooy si am solo. da nga yor place wala da nga nekk si kër. Mm, si kër laa nekk wax dëgg yàlla sama kër laa nekk moom. Mm, waaw. Ah, bu ñu ñaan ah, képp ku nekk bitim réew da nga koy ñaanal wala. waaw ñooñ dañ leen di ñaanal wala. ñooñ buñ déggantee. ba juboo dañ leen koy envoyé mu dem réew ma. Mm-hmm. waaw say weexal mbaa seerut. ah waaw kenn ku nekk li ngay ñaanloo rek. ñaan moom kenn ko ne li ngay ñaan lu rek bu dee lu ndaw ngay ñaan lo ñi ñaanal lo ndaw bu dee lu mag ngay ñaan ñu ñaanal lu mag rek ah buñ ne buñ ne buñ ne ñaan day sama xel day dem ci walum mbërum lamb da ngay yëngu ci lool waaw walu waa wàllum yooyu moom dañ ci yëngu tax képp ko xam mom manam boole nañ ñu ñu gisante ñu ñaar inshallah bu neex yalla mom dañ ci yëngu bu baax baax ba nga am sindam ma am sindam ndam lamb waaw lay mos nga ñaanal mbërum lamb mom daan mbërum làmb moom duggaguma ci mom ndax dugg ah, si dugguma si nga gis gisagu kenn hmm. ko waaw kii guma si allah bu neexee yàlla moom yaakaaram buñ jàppante moom dootoo demati si beneen sëriñ si man ngay yem kana bayre mo moo hmm? ko yow bayre yaa kana moo ko saf sap ba mbëri mën a ñëw ah dit bayre moom bayre moom xam nga luy bayre fexeel hmm. ba koo defal ku ne na ko gis ba indil la ñeneen loolu may bayre waaw da ngay defal wàllum bayre bayre waaw bayre si bayra mbooloo lan mooy bayra mbooloo. bayra mbooloo xam nga am na bayra yoo xam te ni maanaam da ngay wut bayra boo xam ne dañuy wut si. Mhm. nit ñi dañ lay wut si. Mhm, am boo xam ne daa am bayra boo xam te ni. micro bi waaw. bayra boo xam te ni daa am bayra boo mhm. ay façon la ndax mën ngaa wut bayre boo xam te nit ñi dañ lay wut si te duñ la jariñ dara. waaw am na bayre boo xam te nit ñi dañuy ñëw di la jariñ dara. waaw moo tax. bayre lu ne ngisi ndax uh, jaay kat bi soxla na bayre boo xam ne am njaayam day jar yaa ngi koy defal jaay kat wala. wa ñing koy defal jaay kat wax deug yalla juuni juuni. waaw ñing koy defal jaay kat ke mom kay yewul ma dem te dik kep ko xam ni ke mom sa place ma am duxu dara duxu xusi parce hmm. que Seexul Xaadim Mbàkke boo dikkee moom joni jooni incha allah amul sax ma dem te dik joni joni joni joni bis bi Seexul Xaadim amul ma dem te dik ci bisub tay nga mën nga. si bis yow est-ce que mo nga ma defal bayra léegi fi ma tok di léegi. fii ñu tok ni won matériel yi ni ma defal ko jox la sunguf bi jooni jooni nga rayo ko genn fi léegi te ñu yaan diw diw diw. diw diw gu xanaa and ak waaw log lu ne karange day dasi si ànd. ndax bay rek kese moom boo ko karange da way gawa dafay gaaw rek. mu ne karange laay wut. waaw déet bay rek ci yi motax wa waaw dasi am solo. Hmm. ndax bo amé gi nga karange gu bari day tëj doomu adam hmm. bo topé di sangu ay karange ay da ngay dem mujj da ngay teju da ngay bolé karange ak bayre ba kula gis bëgg la. Hmm. tul yang nga yar tul tul de ñing kay defal mok ndambal ñu yam iya rek ya. waaw defal nga nit bam gis ko ay ay morom wala ay eh, bari na ci jamono ya ji tul bari na lol waye tul da ma mané delu de day delu ah man yi may defal wax deug xam yi may defal amul ben bu ci delu mom ñima ma hmm. ñepp defi ndoli bolé wat nañ ma ñeneen ak ñeneen ak ñeneen hmm. waaw motax ah, tul de lay delu nak boy xol boy hmm. ñi daanu dañuy daan ba ci yag jëm seen bop boba tul bobu da dafa delu det xam nga ay passion la ndax man defuluma kenn ay walum jill wala na dedet man kuy ar sa bop koku lay defal hmm. waaw kay waye ngeen du ay tapale ki caaxaan moko taxaju man ak mom njumu way waye budé tul kep man jam la du dugg parce que qadim xaddim bo boo dikkee bu la defal amul ma dem te dik joni joni la ah, di mo bari no moom man ni nga wax da may defal ma gis bu ko defé bu ëllëgee waaw ma mën a toog bi defal na ma incha allah boo bu la nexé kay bu suba bo dikke ma defal ndambal wi ak tul ak kay <laughs> waaw booy xool euh, xam kii xaw nañoo bari lool buñ lay buñ lay kar sax doo ko bàyyi xel. Euh, kon nak mu ku bëgg bayra bu baax wala nga bëgg tul bu baax di sant bu baax ministre yi Touba der man na wa kër seen Cheikh Awa Balla euh, ñu ngi leen ziar baax di defar ay lal yu baax ñom euh, nee mu dugg rek ñom ñokay leral di sant bu baax de fast food complet lamfal ñaa ñu ñu ngi leen ziar baax restaurant sax la ndax lepp nga ci biir dem defal nañ ma reer bu baax waye nak mag jang sala ko bok waye jang sala nag bu mu dikene da jël da jël ñaar yëpp ne du ma jox benn bi loolu moy problème bi Matar fexeel fexeel fexeel mu jox la boo léegi boo ñëwee mu jox la euh, gis nañ ne dëkk bi rëb na dëkk bi kaaraange amu fi kaaraange lan mooy kaaraange. kaaraange moom aar sa bopp la rek. Hmm. fexeel ba maanaam daal yow nga wut loo xam te ne ay muslaay yu baax ba nga xam te ne nii. kenn du mën a dal si kaw nga wuti maanaam muslaay yoo xam te ne daal ku yegg si yow si hmm. xam ne maam yegg si na si mbër. Hmm. loolu moo si am solo. ndax jamono ji moom boo amul kaaraange amoo ginnaaw gaaw a dee rek. gaaw waaw. ndax ndax jamono ji boobu ñu dara liggéeyante bi bëri na si. Mhm. lorante gi bëri na si rayante gi bëri na si. waaye boo fexee ba aar sa bopp moom ba kenn du man si yow dara. Mhm. moom lépp dana taw fexe incha allah. sëriñ ji booy xool sëriñ bu gën a ndaw. moo la gën a mën a seex. man moom ay seex yooyu moom daanaka man fonk mu ko xam nga lu ma fonk. Mhm. fexe ba li may jëflante ak yow nga teg sa bët loolu rek am solo. lee amul leneen lu ma si teg barki nit bi ah, ndax ah, lam wax moo moo moo xaw a leer naañ samay samay samay nopp ah, gis nañ ne Sénégal politique bi bari na yàqante bi bari na raye gi bari na ndax booy xool nit alal jaral na ko rey nit li jaral na ko alal jaral na ko mu liggéey nit ki ba mu dof yow yaa ngi liggéey si wàllu liggéey nit bam xaw di bam mu tàgguloo yang yaa koy def yooyu moom di ber ndax ah, man ma wax de yàlla ar nit ñi la ci nek waye lor nit doom adamu alali àdduna tax ma diko def yorna nak bagage yo xamanteni ñi ngi koy bo jele ci si kay jele bu bo xasse tak se ndig wala nga def ko sab tank amna na ci ñu bo xasse tak se ndig wala nga def ko sab tank barke cheikhul qadim Mbàkke kula mam ñu si amun yi dem di dik ndax unku mom kenn du wa lek waaw kay am na boo xam ne si deru mboot lañ koy def am na luñ koy boole boo ko eh, boo ko takkee sa ndig ku la liggéey faatu amut amut kii njabarkat la amut kii nangam. Hmm. Oh, barke Seexul Xadim amul ma dem te dikk. barke Sëriñ Tuuba dama kaa fàttee indaale sax waaye boobu tey jii rek laa ko tàmbali doon liggéey waat ndax daa jeexoon waaye am na yu ma si jot a liggéey nii pare nii. Hmm. waaw si ndox ngay seete. wala si suuf si pitaaw. da si kurus gi laay seetee. kurus waaw. kursi yow nan nga ci sété kursi ak nim mu ni ah waaw loolu dara sété si boobu na ndax parce man nga jakkar lu nah? Nah, nit ni wax ko lay nek ci mom yépp tok du ko sétal ah moy sét eh, da ngay laaj tour ndem wala tour bayam bo laaj tour ndem ak tour bayam mom noko ko sétalé a seetalee. boo laaju ak tour bayam sëriñ ci sëriñ ci dañ koy def. ah man de len de la la la man ci nit. Hmm. ma jakkar yo nga dik si man di ma sétlo ma la jakk xam li nek ci yow. bu dee koo xam ne gëmut sëriñ dafay jàkkaarloo yow wax la li nekk si yow toog di la seetaan kooku daal laa xam ne moom danaa ko def waaye ki nga xam te li maam dafa dikk di seetlu sama kurus gi lay jël di ko seetaan mm. ma gis uh, ñaankat dañuy laaj atat xam nga adat xaw ma yooyu comme yooyu mm, man waaw kenn ku rek la ngay seetee neexee nga laaj am na ñoo xam ne sax dañ lay laaj ñaata at nga am ak yu kenn xamut waaye man daal li may seeta rek laa lay wax ngay dégg. waaw da ngay da ngay da ngay def loo xam ne dañuy tàggale ab sëy ndax gis nañ ni léegi góor ñi ak jigéen ñi bëggante daanaka amatu si. Boy, xool da ngay gis jigéen koo xam ne day bëgg benn waay rek wala waay yooyu bëgg ko rek bu dem si sëriñ rek liggéey ko ba mu bëgg ko est-ce que yaa ngi def loolu. man wax dëgg am forcé jigéen pour pour nga takk du ko defal kenn waye dal fi ñu ne bu doon da bëggal tek nit ay wajurum bañ inshallah allah bu neexé yalla bu la neexee mën ngaa jàpp bis xam wajuré dañ nangu hmm. barki Seexul qadim Mbàkke inshallah allah bu neexee yàlla li nga wax ak li nga bëgg li ngay def sore wuñ de sore nañ de ndax ñaar ñu bëggante ño am solo ñaar ñu bëggante rek am solo hmm. ndax parce da ngay gis nit mu ak nit ba paré wajuré bañ hmm. koko noonu fi mu toll na gis nañ ne euh, tak ñetti fan mu tass lan moy waral loolu xagn na mbëggante dafa nekkul wala mo doon ay tiaxaan ak ay toppale rek waye bëggel dëgg-dëgg moom ba nga ba nga bëgg nit ba tag ko hmm. loolu amul leen loo xam ne ay tiaxaan wala ay def def ak yooyu it mën na see nekk ndax jamono ji léegi da ngay gis ñaar ñu bëggante ba ba bañ takk sëy ba pare sirin jaar si ginnaaw dox ko yàq diggante ba hmm. waaw loolu lépp ngi gis naa góor ñi dañuy sëf de est ce que yow yaa ngi boole bokk nga si ñuy sëf mbind laat sëf man moom wax dëgg yàlla moom ay sëf ay jigéen pour mu topp góor wala ay yooyu yooyu di say mbir moom hmm. waaw lan lan ngay faj lan ak lan ngay faj. wàllum rab de dañ koy faj. waaw maanaam seytaane dugg. waaw ku wàllum rab ak seytaane bokkuñ ndax danga ne rab ne seytaane. Mm-hmm. rab mooy ki nga xam te ne maam tey jii rab day nekk si yow comme ngay géwantu di sëy wala mu lay dugg si xeetal si ay caaxaan ay kenn xamul daal. loolu mooy wàllum rab. Mm-hmm. waaw yooyu moom dañ si yëngatu baax a baax sax. Mm-hmm. xamul leen lañ si loolu moom dañu topp traitement bi rek. du doon loo xam ne day dikk léegi nii rek nga dindi ko irsan si de man loolu defuma ko damay topp traitement bi man ak yow ba xam fexe ba jàpp rawaan wi wi lay yàqal fexe ba jubbanti ko ba mu lay defaral ndax rab moom kenn mënu kaa dindi si nit ba mu dañ ku taxaw sëriñ bu man ne ma lii mën naa kaa dindi si nit ba mu dañ mais waxoo dëgg ah. da nga koy jubbanti ba mu jubluwaat ak borom sëriñ bu jàkkaarloog ne ku jàkkaarloog man ne ma mën naa kaa dindi si nit ba mu dañ spécial may la waxoo dëgg ku mën a doon. sëñ saa koy dindi ma la wax jubbante ak dindi bokk da koy jubbante ba mu jubluwaat ak borom ba dootu ko yàqalati waaye rab kuy dox si kaw ko ne am nga rab. ah sëñ si koy dindi ndax buñ buñ ko dindi woon du dee xanaa. waaye dindi bi ak ak ak ak ak dindi bi dindi xam nga danga na ma dindi. waaw dindi ko moom dañ complètement. moom dindi bi xam nga luy dindi. Hmm, mu loo xam ne day day dañ si borom. waaw dootu dootu ñëwati. déedéet koy jubbante ba mu jubloo ak ba dootu ko yàqalati hmm. loolu ngay def waaye dindi rab si nit bam dañ wecc spécial ba nga xam ne kooku doon amatul ay rab hmm. ku la ko wax waxut dëgg. ku la ko wax waxut dëgg. sëriñ si xanaa kon nañu lekk xaalis. Ah, xaw ma de waaye ku la ko wax waxut dëgg de. ndax parce que rab moom bu dee day yàqal borom da koy jubbanti boo ko jubbantee ba mu jubloog borom nga xam ne dootu ko yàqalati dootu ko defalat dara noonu lañ koy def waaye ne dinaa dindi rab bam dañ si borom spécial. Hmm. déedéet. ah yéeme na de. yéeme na lool léegi biñ ne da dindi rab. Mm-hmm. léegi seytaane yow da nga ko waaw seytaane moom loo xam ne day solo nit la rek ndax maam mën nga di dox guddi seytaane dugg la def la saaru ngelaw. Mm-hmm. mu di la newiloo mm-hmm. ak xeet yooyu. waa yooyu moom da koy man nga kaa fexe ba dindi ko ba mu dañ bokkut ak ndax pratique kooku moom bokku si nit da dugg si waaye bokku si ndax bokkut ak rab ndax da nga ne seytaane ne rab. ñom ñaar bokkuñ rab mom fo nek fu ne mi ngi and ak borom dadi bu baax bi ak bu bon bi mm-hmm. bu dee bu bon bi dang koy jubanti bam jublu wat ak borom mm-hmm. waaw bu dee nag loo xam ay walum setan la ak yooyu koy dindi ci nit ba ni day dañ spécial mm-hmm. bu ko defé dang koy wutalat kaaraange go xam te ni rab dootul mën ci mom dara wa ah, jigen gu mënta am dom wala gor gu mënta am dom dang koy faj. wa bobit ñu ngi gor gor ñu ngi ci ñu ngi ci gor gor am na ño xam ni ay rab mané fexé ba duñ am dom mo leen yakal yàqal da ngay fexé ba jubbanti rawan wi ba dootu ko yakalati nga xol sarax yi mu bëgg nga ko defal ba dootu ko yakalati inshallah bu nexé bu topé toppee mom da nga dem ba inshallah ci ñaata fan ngoy dindi. loolu non dañu top traitement yi rek. yoo xam ne lepp top traitement la. loo gis lu ne traitement ndax fa xamal lu tax mel lo gis walum rab da dund lo xam da ngay dik léegi ni dindi ko léegi ni si nit mu dañ léegi ni instant instant. mën alew da nga bañ ba ni jooni Nak bu ñu joni joni lepp dafa war a joni joni déedéet du lepp wara joni don joni joni hmm. nak ndax parce que nit man na dik ni ne dama soxla sangat léegi ni nga defaral ko léegi ni am sangat bo xamanteni fok maam nga am si ñaari fan do koy defaral am bo xamanteni man ni dik naa ni nga defal ko léegi ni mu dem léegi ni sama cameraman mu may signal ne mo waxtu wi les des bëri jout waaw fan nga dëkkee. fàttaliwaat tur ñi seetaan DSTV ak eh, ku lu bëgg jot nan lay def ak fan la wara aw ba yegg si bu dee daa jóge Touba ndaamaat wala nga jóge foo dëkk foo mën dëkk daal boo waxee adresse bi inshallah xamna wa naa waa Touba te bëgg fajlu rek bo buñ boo leen joxee numéro bi rek inshallah xamna da naa danañ ñëw. man ba baangi de jun jun ñom xamna naa léppay joni wa baangi de ke yoon da Rahman si poste quran yoon da Rahman bi mhm. mbedd bi jëm arrêt Bar ci maa may nekk fo ci diggante bo rek fo la dëkkee mhm. yegg bi bitigu Seexuna bo la yegg fu wa kay ñoo dend rek man ak mom ñoo bokk ben koñ mhm. waaw xam naa bu baax. waaw ñoo bokk benn passage ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw kooku jaaykat bitig la mooy foofu si euh, yoonu daaru goog rek ñu koy siyaare bu baax euh, adresse bi foofu la. waaw fàttali tur ñuy seetaan euh, DSTV ndax ñiy seetaan xam la ndax ñuy seetaan dañuy laaj bari ñoo xam dañuy laaj ba xam jooni jooni gi yomb na wala yombut. waaw jooni jooni gi moom dañu ko tuddee. Hmm. doon loo dama kaa créer sama bopp de. ay ay nit ñoo ma tuddé da am ku dikkoy si man di ma ben benn laax ni ma la ko mën a masal laaxu tul la ma défaral ko légui ni mu ngi ci résistant légui ni moo tax mu tuddé ma joni joni ba joni joni joni continuer waaw léegi joni joni joju mo continué waaye moom joni joni yow ya ko ya ko jallale wala mom mo mo jallale mom bam law ñom ñoo ko jàllale law ñom waaw kon yow mom doo dara waaw mom mom wax dëgg yàlla damaa kii rek waaw joni joni ji wax dëgg yàlla fépp moo kii Aliou Seck borom jooni jooni lañ lay wax mhm. waaw. Ah, kon nag yéen ko euh, déggandoo euh, sëñ Aliou Seck borom joni joni ah, nekk euh, tuubaa yoonu Dar Rahman si foofu si poste courant bi ah, soo dikkee ba foofu rek boo ko woowee si numéro téléphone yooyu suuf écran bi rek incha allah danga la wax fi mu nekk nee naa la joni joni sëñ Aliou Seck nee moo si gaaw lii di ndoxam si di jàngoroy Kajoor yooyu yëpp da koy faj waaye nag góor gu néew kàttan dañ koy kii bu dee judduwaale woo ko day leer bu dee judduwaale woo bu dee judduwaale woo ko dañ ko faj loolu ñu ngi koy faje si xànc waaw am na boo xam ne si xànc lañ koy fajee am na boo xam ne si xànc ngi gis lañ koy faje mhm. waaw suñu àll sekk neen day faj euh, loolu li ñu wax euh, ak góor gu tële waaye nag góor gu tële bu dee judduwaale woo ko rek incha allah dana ko fajal euh, na ko bëggee ah, si jooni jooni nee la traitement bi ngay topp rek moom léppam traitement la waaye nag na mu sant bu baax a baax numéro téléphone bi. bi ba pare dañ ko joxe suuf. man tey moom tey moom numéro téléphone bi moom tey moom yaakaar naa ko suuf écran bi. waaw dañ kii suuf écran bi rek ah, ah, incha allah xool suuf écran bi yi ñu seetaan DSTV laaj mu ne mu jàng. Euh, borom Dieng Saala TV ñu euh, ngi lay siyaar bu baax a baax tabaarkàlla di am kontaante bu baax di siyaar baax ki nga àndal. Euh, suñu waa ji ñoom it ñu ngi koy siyaar bu baax. di ko ñaanal tawfiq ak taysir lan ngay tàggoo ak bëgg naa nga maye bu benn kii boo xam ne ñi seetaan mu ko defee ñu mën a xam benn benn benn kii daal nu mu ko waxatee ci wax yàlla ay secret moom di ko joxe si ay kii wax dëgg yàlla moom. secret yow doo ko maye. man moom ay gaw ma yooyu ndax parce que moom fi ne cinq mille ci si laa nekk. dëgg yàlla. si Aliou yow. si Aliou nit ñi sëriñ si lañ maye secret man dégg li mu la yi ma yor man daa doonut ay tappaleeki caaxaan ak yooyu. yow loo xam ne nit ki war na see mën a faju. war na see ko se jàppale pour ëllëg mu mën a ñëw yow. bu ko may secret comme ni ñu ko xam ku man nga woo dik ci man incha allah boba day jëflante bu baaxa baax ba nga boole ma ñeneen ak ñeneen may dund lo xam damay tok ci plateau naan bo defé nangam bo defé la bo defé dedet sama xam-xam bi ma yor doy tiaxan doy du sama deret la nekk dama ka doon motax duma ah kon de lolou du fa ci tek dara ndax damay baña togn bu buñ doon moo waxee damay togn ta damay bañ kuma jël ci si alu sek lan ngay <laughs> lan ngay lan ngay lan ngay ci ñu des tv ak sa client ni ah. li may tàggu moom mooy képp koo xam te ni képp koo xam te ni daal boobu. xaw naa la fee mel am na ma bëggoon benn secret boo xam ne mën naa ko mën naa ko jëriñoo misaal jëriñoo ko waaw. <laughs> waaw bu dee comme ci kaw tool rek dañoo bëgg lu mel ni ay comme kaw tool yi boo amee embassement ñu dàq la si ay wàllum safaroog yooyu moom am nañ téere bi képp comme ne da ngaa bëgg Bayre Ndiaye si wàllum place am na fi képp ko ne da bëgg bayre boo xam te foo wiiri nit ñi naan diw diw diw am na fi képp ko ne da ngaa bëgg bayre boo xam te dangay ngay ñam di mos moom bayre kese moom te doo mos moom mooy loolu waaw boo xam te ne wàllum xaalis am na sangatam waaw mooy da ñam ay façon waaw comme faaw ngay faram pàcc ñu xam la mooy mos waaw faram mooy mos gi ma mooy wàllum xaalis xaalis waaw kay loo xam ne farata la daal waaye loolu ay toppa yeeg caaxaan la yooyu boobu bar xaw ma yooyu waaw kay waata yooyu daal am na si képp koo xam ne da ngay lijjanti ay kayit mu të mhm. moom it moom boo dikkee incha allah bu neexee bu ñu jëflante dana taw feex mom. moom incha allah boo waajee moom yor sa xaalis moom bu dee da ngay déposé moom incha ah boo yurub moom da ngay di sangatoo baa nga yoree rek da ngay fi di sangatoo baa nga yoree rek ah, ah, waaw moom moom la rek ah moom ah da ngay rek xam fii moom kenn yóoru fi waaye da ngay sabal lu yàlla rek waaw yi daal képp ko ne dikk nga daal moom soxla yooyu yëpp moom incha allah dañ si jàpp baax a baax waaw borom Touba waaw ndaamaatu yu yëngu yeeg ah, waaw waaw ndax parce que léegi sëy yu bëri daa yëngu mm-hmm. ak kër yi ñuy yàq yooyu mm-hmm. ndax kër yu bëri léegi dañ koy yàq ba kenn dootu fi dëkkati waaye yooyu bo boo dikkee ni incha bu neexee dañ lay defal ay bagage ba boo ko sampee si biir kër gi moom lépp lu fa nekkoon si lu yàq day toj spécial dañ la fa defalaat loo xam te ne lu fi waaye indi si lu bon da koy yóbbaale waaw yor nañ si it yoo xam te ne ku la liggéey moom incha bu neexee yàlla moom day dellu si kaw on moom ku la liggéey day faatu bu dee lapptaak am na si bu dee tulit am na si bu dee ndambalooñ am na si ba si tul fetal it moom am na si waaw tul fetal yooyu gars yi dikkee moom moom buñ déggante incha bu neexee yàlla moom dana la si defal boo da ngay ñëw isin kenn koy da nga koy da ngay xool dara loo koy mën kaa takk hmm. boo ko takkee garab boo ko takkee garab wëlbatiku wëlbatiku bëgg koo takkaat. waaw loolu wóor na li nga issin li nga issin ba mu leer naa ñu loolu amut leen li si si saakaat. man damay bañ mu rëcc. déedéet loolu amut ma def te dikk. damay bañ mu benn musiba fi am ndax parce dañ kaa issin ba mu leer nañ ba mu amul benn loo xam te kii la. Hmm. ba mu doy la nga dikk jënd. Hmm. waaw. noonu la rek. jërëjëf sëñ Aliou Seck sama cameraman moom mooy signalé mm. dina waxtu ba daa jot soñ ma ñetti yoon mm. ah di sant bu baax a baax ginnaaw loolu nga tàggoo ñoo ngi lay sant bu baax waaw mm. ah, di ñaanal tawfiq ak taysiir di ko sàkk bu baax ndax ginnaaw am ñaan kan nga sëñ Aliou Seck war nga ñoo ñaanal ñun ñu ah, xaw a dem tuuti dafa xaalis bi mën a ñëw ah di sant bu baax équipe ADS TV soxna Maguette ñu ngi koy ziar bu baax ah, Serigne Modou ñu ngi koy ziar bu baax sëñ Cheikh Euh, ñu ngi koy ziar bu mu ngi sa euh, tiwawan di wajal gamu gi euh, ñu ngi koy ziar baax serigne mam Cheikh Mbay Touba are Bar Cissé ñu ngi koy ziar bu baax koku neena amna lu may wajal ñu ngi koy jaajeufal bu baax di bu baax serigne Modou fay ñun ñep ñu ngi leen di ziar baax waa Arrêt ba yëpp sëriñ Saliou tey yi mo aw ci bop bi mo ngi fofu sa Touba are Bar Cissé ñaanam moo wad bu am solo di ziar bu baax Ibra Fall emprunté bobu ak baylat ak serigne Basirou ñooñu ñep ñu ngi leen ziar bu baax wa Arrêt Bar Cissé ñu ngi leen sante bu baax baax Euh, Kara Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax ñaa leen lépp lu ma sol moom la ñu ngi ko jaajëfal bu baax tey mun ma jàll numéro téléphone ndax damañ bañ jëng saal yóbbu ma foofu ñuy wax bu indaate bee nag ñoo koy jàllale euh, numéro téléphone bi euh, mu nekkoon Sa Touba borom lépp ak fépp li bañ jang saal di bañ ñu ngi leen ziare bu baax di leen jox rendez ak beneen émission tey nag nee leen émission Euh, li nga ko waxati suñu émission bu mag bi jotaay xam-xam euh, moom la ñu àndaloon Serigne Seck ndaanaan jooni jooni euh, moom la borom Touba yoonu daaru foofu sa poste courant bi boo dikkee poste courant bi rek soo ko wooyee si numéro téléphone yooyu suuf écran bi rek incha allah dana la wax fi mu nekkee ñaa jooni jooni da koy da lay def léegi nga gis léegi waaw di sant baax ministre Touba Daarul Marnaan waa kër Serigne Cheikh Aw Balla di ko ñaanal tawfiq ak tey sirama Moustapha Aw ñu ngi lay ziar bu baax di ziar baax restaurant fast food culture complexe Lam Fall euh, Mouhamed Fall ñu ngi koy ziar baax di ziar baax képp ku ñuy gunge euh, fii si émission yi nekk si kër gi ñu ngi leen ziar baax ah, di wax sponsor yëpp nañ ñëw euh, numéro téléphone baa ngi noonu suuf écran bi bu nekkoon saa Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh